Bougane Gueye Dany mu ngi noonu di dugg si euh, Bougane Gueye Dany mu ngi noonu di dugg si ñu ngi noonu di ko gis euh, ci euh, oto garde garde présidentielle bi jëlee nañ ko fi nga xamante ne fii moom moo di ci prison bu Tambacounda ci benn voiture verte nu ngi ko gisee noonu ci image yi moom Bougane Gueye Dany jot naa dugg audience bi nag ci fàttali ñu ngi jàpp ni ci onze heures bu jotee maanaam fokk waxtu ak benn bu jotee ci lay tàmbali. fii ci diwaanu Tambacounda wala donc en tout cas ak li si mënti am ki nga xamante ni moo di Bougane Gueye Dany moom jot nañ ko indi euh, fi nga xamante ne fii moom moo di tribunal bi la nag wala layoo ak ñi nga xamante ne ñi ñoom ñoo di juge yi ak ñëpp ñi nga xamante ni bokk nañu ci système euh, euh, judiciaire bi itam am kaddu jëmee ci procès bi nga xamante ne tey ji am ci situation bi nag ci terrain bi il faut que ñu fàttali ko jëm rek ni ci jamono ji nañ ko wax diwaanu Tambacounda moom egg fii ci tribunal bi daanaka mook jéggi siraat xëcc nañ ñoo yem tey nag dañoo ay disposition ngir rek askan bi képp ki nga xamante ne bokkoo ci way taskatu euh, way tas xibaar yi ak ñi nga xamante ne ñi juge nga wala ngay liggéeyee peg bu tribunal bi euh, dañu lay dàq ne nag dañoo def ay barrière daal ka randale fu sore sore sore sore ngir rek gën a éviter li nga xamante ne lii moom moo fi amoon ci ay bés ba li ñu weesu jëm ci ay sabar ki ndënd yañ fi sampoon di tëgg ka fecc ngir nga xamante ne ñii ñoom ñoo di waa Pastef loolu nag tey jii nag daanaka ay eh, résultat ay ay décision yu eh, yu ferme la ci la ci la ci way takk deru kaaraange yi jël tey nag accès bi ci tribunal bi c'est très filtré képp ki nga xamante ne am na sax ay way takk ay ay ay journalistes yi nga xamante ne dañoo am problème accéder ci fi nga xamante ne fii ci mooy eh, mooy ci tribunal bi jëm ci ay wàllum carte de presse wala ay carte d'identité identification ak yi ni donc bu fekkente ne waaye taskatu xibaar yi am nañu yooyu lay jafe-jafe asma laak askan wi nga xamante ne nag jamono ji aussi ñoom ñoo fi yeewu wala bokk ñoom bëggoon ñëw tey jii fekkee li nga xamante ne lii moom moo di procès Bougane Gueye Dany bi gis nañu aussi que ñii di garde rapproché wu Bougane Gueye Dany yi ñoom ñoo nekkoon ci pick-up euh, di dog di teer léegi nii ñoom itam egg si nañu ñu ngi fi xam nga ni am na délégation bi nga xamante ne moo fi des Euh, depuis bi ñu jàppee Bougane Gueye Dany daanaka fukki fan ak nii ba suñu jon yàlla tey ñoom ngi fii ci Tambacounda wala te itam amoon na beneen équipe bi nga xamante ne aussi moom moo nekkoon foofee ci diwaanu Dakar di coordonner les activités ak li ci am la vie politique euh, de son mouvement et de la coalition euh, Sàmm Sa Kàddu moom dafay continuer malgré bon les conditions sinon l'arrestation de de de de de de Bougane Gueye Dany maa ngi koy wax sànq donc tey jii xëj na même tribunal bi am fi ab këyit. Euh, dina nekk lu jafe trop trop trop trop ne gis ngeen noonu euh, force de l'ordre di nañu barricadé entrée bi ñu ko defee nii ci entrée bi noonu lañ ko defee ci point stratégique yëpp yi nga xamante ne jamono ji moom moo jëm euh, ci tribunal bu bu bu Tambacounda marché bi nag aussi tey xëj na du liggéey ndaxte nak gis nañu aussi ci biir marché bi fépp fi nga xamante ne ab prox ndool la woon client wala bokk ab nit waroon fa mën a jaar Euh, dafa mel ni tey loolu la du mën a nekk te itam gisaguñu benn cantine daanaka keroog gisoon nañu cantine yu nekk suñu ginnaaw yëpp daanaka tijji woon itam ci sax lañu doon profité di suñu ay portable ak yi ni mel wante nag tey jii gis nañu lépp li nga xamante ne nekk na boutique jaayukaay ak li nga xamante ne nekk na euh, yëf yi mel noonu dafa rek tëj ràpp euh, fii nii muy nag une situation bi nga xamante ni bu bu déplo bu déplorable la jëm ci wàllu koomu réew mi nde nag la ville Tamba ville morte on peut on peut on peut en parler ici même jaaykatu taabalu café yeeg ñëpp ñi nga xamante ne euh, kenn ki nga xamante ne nga sam taabal daal di kaa jaay peut-être que ñenn ñi ils ont reçu des instructions si mën ci am aussi donc on est là on, on va surveiller la situation Euh, fan la wànnant di mujjee ci gëtëm voilà pour euh, résumer seulement mesdames et messieurs donc on est ici à Tambacounda pour assister au voilà on est waa dañu ñëw ah, euh, tey à ah, ah, pour euh, assister au procès de notre euh, camarade le président Bougane Gueye Dany parce que nous considérons qu'il a été politique parce que c'est un candidat aux élections dafa war a dem campagne électorale li xew déjà vous avez vu jam parce que jàpp naa ne ki nga xamante ni ak ñi nga xamante ni sax laa wax ñoo nekk ci bopp réew mi euh, li leen ñor tey moom mooy suuxal démocratie mooy yàq réew mi te commencé nañ ko parce que li may wax rek réew boo sosee wax ba ñu jox la ko doo wax ba defar te aujourd'hui c'est regrettable d'en arriver là et je pense que nous, nous sommes venus soutenir mhm. euh, notre camarade. Je pense que c'est un otage politique qui va être libéré. Nous sommes venus aujourd'hui à Tamba pour d'abord assister au procès de notre ami, notre camarade euh, Bougan Gaïdan.